alors éco entreprise ñuy waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni euh, les accidentés du travail ñu ngi koy euh, dund bu baax a baax alors euh, pour commencer boo doon def ab jàngat ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñi nga xam ne ils sont victimes ci kaw tali bi ci ay accident wàllum accidenté du travail jafe-jafe yi lan ak lan la balaa ñoo tàmbali waxtaan bi. madame Condé. Mhm. maa ngi leen di encore une pour opportunité bi ngeen di jox pour ñu wax les jafe-jafe yu accidenté de travail yi am euh, dans les entreprises effectivement euh, accidenté de travail dafa nekk loo xamante ni euh, même boo accidenté ci tali bi di dem ci sa bari di dem ci sa liggéeykaay accident de travail la tamit. Mhm. ci biir usine bi wala ci biir entreprise accident de travail la nga jëm di ñibbi. accidenté de travail la nga nekk di def sa mission accidenté la. Mhm. surtout côté prise en charge bi euh, dafa toll foo xamante ni fii au Sénégal euh, bu fekkee da nga def accident de travail dafa am ñaari pàcc. dafa am ñoo xamante ni c'est géré par la caisse de sécurité sociale am na ñoo xamante ni c'est géré par FNR mooy fonds national de la retraite moo leen di gérer mooy état bi. c'est-à-dire que les accidentés des fonctionnaires de l'État ak les accidentés du privé duñ benn bokkuñu fu ñuy cotiser. ñi ngi cotiser caisse social ñi sociale ñii si état bi la ñuy mais prise en charge boo xamante ni mi ngi jógee si côté privé bi. Mhm. dafa nekk loo xamante ni dafa doy dafa doyut. dafa nekk jafe-jafe ju metti joo xamante ni ñun privé yi ñu ngi koy dund nous nous vivons avec les accidents. Mhm. moi qui vous parle je victime d'accident. Mhm, donc euh, je suis mieux placé pour le dire. boo xoolee ñi si wax ñu bari ils sont pas victimes d'accident hmm. te au contraire sax ñu bari si ñoom ñu gën a sonal ñu gën a bund xatal accidenté yi si leen bokk les accidentés pour vous dire devant vous et devant tous les Sénégalais de travail danoo sonn dans les entreprises dañ leen di bund xatal hmm. dañuy recevoir tous les harcèlements moral ndax la ñu leen di bunt xala que dafa toll foo xamante ni nit ki da mën mënatul daloon doon xëy dem di liggéey mm. dara dalu ko mu jóge foofu dem ci entreprise am di liggéey machine bi mu doon liggéeyee walla ci yoon bi mu doon liggéeyee ndog dal ko ñu dagg tànkam ñu dagg loxoom mm-hmm. gisatul walla am lu ko jot loo xamante ni manqué na ko pour tout sa vie mm-hmm. et on dit souvent que les amputés suuf pour toute leur vie. mu nekk benn traumatisme boo xamante ni moom da dund dund ko ak boppam. dund ko ak njabootam dund ko ak papaam ak yaayam dund ko ak njabootam dund ko ak même ay collègues am doon liggéeyal. bu ñëwee nag ci entreprise bi dans un premier temps dal nañu je vous donne bii rek passé am na benn accident bu amoon fii Sénégal bu mag man avait trois jours de trois jours de de deuil déggatoon wax si Où sont ces victimes d'accidents Qu'est-ce qui sont devenus les familles de ces victimes Posez une question bi de. Mhm. fàtte nañ leen rangé nañ leen. c'est comme ça que ça se passe dans les entreprises da ngay def accident après ñu jëlee la fa ni la feneen moi qui vous parle quand j'ai fait mon accident. comment vous euh, ça vous est arrivé. Bon, quand, accident quand, je pas trop sax du mu parce que. Mm -hmm. comment ça s'est arrivé je travaille sur une machine. et la mhm. machine a, a pris la main. donc voilà moi qui vous parle c'est un exemple six mois après mon absence à l'usine je me suis retrouvé ñu jël keneen jël sama place mais ce choc psychologique là peut-être man je mën naa ko dékku sant yàlla am na ñoo xam ne ñu ko dékku te ñu bari si ñoom wuñ ko tey mhm. ñu bari tey ñu bari tey ñoo xamante ni tey ils sont dans la rue di yalwaan mhm. ñu bari tey ñu ngi si tey seen kër yi tey pratiquement mhm. perte nañ seen bopp tey wallaahi ñu bari dof na ñu bari ñoo xamante ni tey liggéeyatuñu te dara waralu ko ndax dañoo def accident. te mu nekk loo xamante ni je le répète dans vos plateaux je répète souvent jommul kenn. un exemple. Mhm, j'avais un chef d'équipe boo xamante ni dañ doon liggéey affaire accident su ma génnee dañ si wax. Mhm. ce même chef d'équipe pourtant dañ si doon waxtaan il m'a parlé de ses accidentés mais bureau la toog am AVC. alors que c'est un accident actuellement il est de courir entre la caisse de sociale. pour xool na lay rentrer dans ces kii te mu nekk lu jafe lu métti loo xamante ni accidenté yi ñu ngi koy dund te doon ñu laisser à eux-mêmes. parce que si on sait que euh, dans le privé. Mhm. c'est la caisse de sécurité sociale. qui gère l'affaire. Mhm. là-bas il y a les représentants des travailleurs. je veux citer les centrales syndicales. ces gens-là qu'est-ce qu'ils font réellement pour vous les travailleurs est-ce que ces gens euh, sont en train de promouvoir mm -hmm. la pro protection sociale au Sénégal. Merci. Mm une bonne question. Mm -hmm. Je défie tout le monde. Je vous défie les journal je ndax mës nañ toog nga dégg. Mm-hmm. un représentant syndicat boo xamante ni wax ni ci problème accidenté yi. Mm-hmm. ndax mës nga dégg collègue war nga mës dégg lël. ndax mës nga dégg benn forum. ndax mës nga dégg loo xamante ni les représentants syndicats ne nan wax ci accidenté yi. Mm-hmm. pourtant les accidentés dañuy cotiser caisse de sécurité sociale dañuy cotiser ay cokof pour ces représentants syndicats. Mm-hmm. c'est pour ces représentants syndicaux autant pour moi. donc seen tey délégués yi ñuy wax noonu tey doo si gis benn délégué moi qui vous parle. Mm-hmm. c'est l'occasion de remercier benn délégué boo xam bi ngi woon fu ma doon liggéeyee. ban may ba ba le sa à dire que dama signaloo sama départ. sa mhm. délégué laa da doon jooy. Mhm, d'accord. elle s'appelle madame mi ngi mi ngi mi ngi Grand Moulin. délégué boo xam da doon jooy xaxat pour wane ni que le directeur là que ce monsieur là que vous êtes en de licencier. Mhm. que ce monsieur là que du moom du man ak ñeneen ak ñi ngeen di dàq. c'est des personnes yoo xam ne c'est des personnes vulnérables. c'est vrai ils sont vulnérables parce que noonu melal melatuñu ko mais da utiliser a def. te nga ni bu baax ni. que ces personnes mënutuñu am liggéey. Mhm. demande-moi pourquoi. Mhm. parce que pour travailler il faut un certificat d'aptitude. Mhm. professionnel c'est vrai. quand vous avez myocopie noo am certificat d'aptitude. ban médecin moo la koy moo la koy a pas un médecin qui va te décerner ça. et le médecin qui va te décerner ça tu n'as pas un certificat d'aptitude personne ne va t'embaucher. Il a très peu de médecins du travail. a Même les médecins du travail. Dans notre mais c'est un médecin de travail qui travaille qui au solde de la direction. moom direction bi la àndal. je l'ai vu récemment et je le dis avec le DRH ñu taxaw di wax ni dañuy def sur la protection sociale di def ay të tël tëj ce monsieur là bu taxaw di wax sur la protection sociale il a combien de licenciés la joxe des lettres de licenciement pour des accidentés du travail. mais à ce jour est-ce que xayma ngeen le nombre d'accidentés du travail au Sénégal. actuellement pour la caisse rek. on est plus de 7000 ñoo xamante ni ils à la caisse de sécurité sociale. c'est grave ça. 7000 accidents. 7000 accidents ils sont plus de 7000 actuellement. ñun suñu association on est plus presque ñu ëpp nañu 8000. Mm-hmm. parce que am na ñoo xamante ni si ñun on ne les a pas encore déclarés. am na ñoo xamante ni ils sont pas entrant encore à la caisse parce que seen dossier il est actuellement à la caisse de sécurité sociale. Mm-hmm. seen dossier matagul. je vous donne un exemple mu dem déclaré ko gars yi ne ko accident bi yaa ko tey c'est-à-dire que ba nga koy ba nga accidenté da nga doon nelaw. il a perdu sa main droite complètement. nit dina tey di gaañ boppam. di gaañ boppam mm-hmm. et finalement on était obligé ñun ñu di wàcc. ba nu mën ba nu mën ba nu mën leen ba nu ba nu ba nu entrer dans ces fonds. mais mais le conseil d'administration dans tout ça de la caisse de sécurité sociale. qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle rien du tout. qu'est-ce qu'il fait non parce que gis nga gis nga cet conseil d'administration comme nous ñun niveau mun gisuñu leen de. le le PCA le président conseil d' administration c' est monsieur Dem Mademba Sock mais xamuñu ko. Mademba Sock waaw Mademba Sock. Mhm. xamuñu ko. ñun peut être si xaw a gën a kii sax ñun ñu gën a gis mu ñu gën a koy bind lettre c' est monsieur Racine Sy moom au contraire bindee mu répondre nu des accidentés mi jàppale ñii di leen may ay billets màkk ak yooyu. Mm. monsieur Racine Sy mais le président du conseil d' gisuñu ko. Mm-hmm. donc mais c' occasion aussi. pour dire que nous les accidentés dañu bàyyi avec la caisse de sécurité sociale pourtant boo defee accident dafa am ñoo xamante ne dañ la war a toppatoo assureur bi anam où est l'assureur dans tout ça je défie aussi tout le monde mhm. est-ce que mos loo xamante ne nit moo ko moom ñi ni kii si accident bi la ko amee mhm. amut mhm. au Sénégal et ça se passe seulement au Sénégal ça se passe pas ailleurs Burkina Faso fii rek ñun on notre association travaille avec ces comment vous faites kii est-ce am ngeen xol est-ce état mi ngi gis comment vous vivez est-ce état xam na lan ngeen dund te duñ ko wax boo ko waxee on te taxe d'activiste mm-hmm. boo ko waxtee on te taxe da ngay victimiser wu d'accord récemment j'ai parlé avec quelqu'un bi mais da ngay man ko si je me victimise pas je suis victime d'accident mm-hmm. moi un carnet de victimes mm-hmm. donc je suis mieux placé pour le dire donc jot na pour nit ñi xam ko jot na pour circulent les accidentés et puis lu gën a graaw je le dis et je le répète jommul kenn képp ku jàpp ni yow tu en tu en tu es à l'abri tu te si wàll si wàllum sécurité routière yi tamit est-ce que vous êtes associé à certaines décisions wala yenn euh, taxawaay yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy faral di am. madame. Mm-hmm. du 10 au 15 octobre 2023 dafa am ce qu'on appelle semaine de la sécurité routière ñun associé wuñu sax. on a on ne nous a pas ajouté ni de près ni de loin pourtant on les écrit. Mhm. di wax ak ñoom nous sommes mieux placés pour faire de la prévention moom mon secrétaire général il a une jambe il a une jambe tànk dafa dagg. Mhm. c'est accident j'ai des gosses yoo xamante ni tey seen ñaari loxo ñoo dagg. tey c'est accident. ñooñu ils mieux placés pour faire de la prévention. Mmh. et puis ça se passe seulement au Sénégal. Mmh. dans d'autres pays comme je te dis même fii Burkina fii ay Côte d'Ivoire ce sont les victimes d' accident ñoo koy def. Mhm. ils sont mieux placés. Mhm. ñoom ñooy taxaw pour wax ko. même à la direction de de la prévention c' comme ça. Mhm. à la caisse gis ñu leen dégg ñu leen. kenn leen gis ma le directeur des accidentés mooy jagu. Euh, moom moo nekk au ak ñun suñu bëgg ñun ko lii leen bëgg. lu mu à la limite de ses possibilités la si mën def. sa location ñu ngi koy sant ko gërëm. parce dama doon dégg am na société yoo xamante boo defee peut-être di la fay wala ñu lay jàppale. Mhm. est-ce que loolu yéen am ngeen ko am ngeen ñu leen di jàppale toog bi ngeen toog ndax yaa ngi ne ba nga defee accident après dañ la licencier. Mhm. est que jotul tamit bu bu fekkee ne dem nga ba mënatoo liggéey wala soit ñàkk nga sa loxo wala sa tànk ba mënatoo dem ñu jël koo xam ne tey sës na ci yow bu dul sa doom wala ñu jël sa rakk boo xamante ne tey yow dina la mën a dina la mën jàppale est-ce que loolu am na seen koo xam ne defal nañ ko ko. non am ko defal. Mhm. yu baax. am na société yoo xamante ne bu yàlla defee nga def accident. dañ lay dañ lay dimbali. daf si am ay façon société yoo xamante ni surtout nag dinaa ko waxaat lu xaw a yéeme nag. suñu mbokk naar yi ak suñu mbokk tubaab yi. ñoom ñoo gën a ñoo gën a ñoo gën a ñoo ñu gën a sonal. les accidentés. Ah bon? parce que si. autant dañ naan tubaab moo baax nag wax dëgg yàlla ma quand j'ai fait accident am na tubaab bu fa nekkoon daf ma toppatoo seen anam lañ leen sonalee dan déjà mais imaginons un, exemple patent quelqu'un qui fait un accident de travail amatul ñaar loxo. wala amatul loxo par exemple un exemple wala amatul tànk un exemple nga xëy benn jour nga ne ko da koy yóbbu euh, euh, Sandiara ma je l'ai vécu quelqu'un bu mi ngi doon liggéey fii weex bee machine bi dagg loxoom dagg tànkam bloqué loxoom dagg tànk bi il est en béquille mu xëy chef d' entreprise ni ko non damay tëj dama entreprise daal mënutoo fi ma la fa gis dalay yóbbu Sandiara. dañ lay xeeb. mais sa c' est de l' et puis gis ñu fenn fu ñu ko jooyee. léegi tu es obligé nga dénoncer ko tu es obligé nga wax ko boo demee inspection du travail yéeg wàcc la déjà inspection du travail les les dossiers c'est épistolaire mooy da nga koy bind il faut nga am avocat mais quelqu'un boo xamante ni imaginons nga doon liggéey mhm. te tu as 300 500 000 francs par mois nga def un accident de travail la caisse sociale woo la xam ñaa la la jox par 3 mois 30 000 40 000 par 3 mois 40 000 waaw te foofu sax mois amutul oui. caisse que depuis 15 mois am a ngi jot normalement ñu ngi jot suñu 30. normalement bu fekkee am na problème foofu tamit aussi. Mhm. comme je le de le dire ñu ngi jot suñu salaire ñu ngi jot suñu suñu suñu pas suñu salaire suñu rente suñu francs par 3 mois. te koo xam dafa amoon jabar am ay doom. moo tax ñu bare tey si francs le mois moo tax tey ñu bare si tey. Mm. ils sont en contentieux gis nga awa mhm. lu mu wax sànq laay rebondir parce que wax nga sànq affaire assurance. Mhm. c' la là où il a le bât blesse. Mhm. gis nga assurance yi c' un système de mutuelle où les patrons s'enrichissent comme c' est pas petit. merci mais les travailleurs même yuy tra nekk dans l' assurance parfois ils pour ñu leen fay leen seen salaire. dañuy dem ba le 15 le 18 wala le 20 pour ñu fay leen seen salaire. donc ñooñu dañu def benn système organisé boo xam ne dañuy gagné xaalis. mais assurance boobu en général duñ ko verser sur les ayants droit <coughs> sur les ayants mooy ñii accidenté am na fi ay fonds de par exemple bu dee accidente de la route mhm. y a ce qu'on appelle le fonds de garantie automobile mais man mënuma wax tey lan mooy njëriñ fonds de garantie automobile parce que fonds de garantie automobile chaque année ay milliards ay xaalis bu bëri lañ fay dugal foofu mais malheureusement xaalis boobu kenn mënu la ne fii lay jaar nii lañ koy utiliser ñaata nit lañ ci dimbale munoo ko xam ba léegi musuma toog man benn année dégg fond de garantie automobile oote na conférence de presse wala dara ne moom day xayma bilan anem lu mu liggéey amul musuma ko gis te vraiment xaalis bu ñu fay dugal c'est pour les populations mais xoolal chauffeur yi bu accidenté nan ngay mujjee dem ci garage yi di taxaw di da ngay yelwaan pour yelwaan dépense yore sa ñaari ñaari bekki wala sa bant pour di yelwaan pour loo yóbbu sa kër te pourtant c'est de profession nga amee accident. tout à fait waaw ah, mais même pour dolli si ñun l'UNSAS. UNSAS ñun ñooy fondateur UNSAS. association bi. Mhm. mais tey gisuñu ko mës nga dégg les gars de l'UNSAS di si wax si affaire yi accident. Ah, y' a seulement Lamine Fall. taal leen clim yi daal lañ déggoon. taal leen taal leen clim yi pale ubbi leen bunt yi dafa tàng. dafa tàng daal lañ déggoon premier mai. di xeexal seen bopp. <laughs> mais Lamine Fall c' l' occasion de remercier. Mhm. secrétaire général de Sénatra. moom moo nekk aussi di dimbali di si wax. pour les accidentés mais sinon doo gis benn syndicaliste bu si wax. parce que loolu nekk na loo xamante ni yaakaar naa ne aussi que ñun ñun yi yu nekk yaakaar naa ne ñun sénégalais ñu war a am nañu war a yërmande. war nañu war a mën a jàppale. Hmm. war na nañu mën a bàyyi xel ces victimes d' accident. Hmm. les accidents de silico ils sont combien de personnes ñoo xamante ni tey perte nañ seen papa perte nañ seen yaay. am na ñoo xamante ni gistu leen récemment génn leen di wax les pupilles d' entre les de de la nation. Où sont les pupilles de la nation Pourtant, c'est l'État qui a, déboursé, presque 7 milliards pour ces pupilles de la nation. Ils sont plus de 1000 créé benn agence am génne benn génne benn décret génne benn benn loi am loi bi mi ngi nii c'est c'est la loi du du 39 2008 du 21 novembre 2008 créer pupille de la nation mais c'est pour qui ces pupilles c'est pour qui c'est pour ces fonctionnaires les fonctionnaires de l'état ñun ñoo am produit c'est-à-dire yow boo doon liggéey ba gaañu ba mënutoo sa yor say doom mm-hmm. état da la ko jël en charge mm-hmm. Mm-hmm. wala ba gaañu wala nga décédé état bi da la ko jàpp mais bu fekkee da nekk ci privé amoon loolu pourquoi mais est-ce que dafa war am dafa war am différence entre les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires de privé. Mhm. État bi moo war a protéger nit ñi. moo ñu war a jàppale mais est-ce que dem ngeen CNES y a des organisations patronales dont dont la CNES. Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Mhm. mais aussi le le CNP Conseil national du patronat. est-ce que jéem ngeen rapproché wu ci ñooñu bind. wax leen voilà la situation qu'on vit. et vous quel est quel est votre rôle. merci dans ça merci merci pour loolu conseil parce que ça qu'on a besoin sax. da ngeen di bind nii da ngeen di bind mais ñu ngi bind. Mhm. ñu ngi bind parce que ba ñu bindee le premier ministre euh, euh, Amadou Ba ba muy doogaa ñëw dañ ko bind. mu lay sax santé ni ko ñun président mi wax revalorisation des rentes wax na ko wax waxaat ko en conseil des ministres quatre fois le ministre du travail wax ko monsieur Samb si monsieur Samb si faale wu ñu toppatoo bind nañ audience dem nañ bi mais finalement ba nu bindee monsieur Amadou Ba mais un mois après il a revalorisé nos rentes. c'est des maigres rentes nag de trente quarante mille ñii am trois mille ñii am quatre mille de autour de dix pour cent te nekk na loo xamante ne ñun xeebuñu ko aussi mhm. Mhm. même ces problèmes les même même jox ay cartes biométriques mhm. parce que actuellement loolu moo tax loolu moo ñu gën a yëngu temps yi parce que ay cartes biométriques yu ñu jox cest yoo xamante c'est des cartes yoo xamante ni droit dem kees ay droit amatoo droit dem kees sécurité sociale imaginons quelqu'un qui a 34 000 francs par 3 mois mu dem dugal banque bi banque bi du génne 4 000 mais 4 000 francs yow koo xeebu ko. Mhm. léegi dans 3 mois nga ko joxaat. des gens on dit non 3 ko jox léegi loolu yëpp ñu ngi si. Mhm. moo tax ñu ngi bind caisse pour que caisse recevoir nous pour que le prix rapidement se. mais est-ce que yéen a ngi amal aussi ay point de presse di génn di wax.

et ça passe sous silence. du mujj fenn. du mujj fenn. te yooyu si bëri ça passe par manque de d'assistance. manque non amuñu prise en charge. imaginons tey mais aussi des est amoon leen ci responsable parce que tey ji booy liggéey fenn xëy na conditions yi war réunir maanaam yow ni nga waxee euh, aaree sa bopp ci wàllum euh, matériel yi nga war a utiliser des fois aussi doo ko am mais teewul da nga jël risque bi ba yenn euh, fekk la ci. effectivement parce que parce que comme je dis dañuy bëgg ñu ngi day bëgg liggéey ba du xool aux alentours mais normalement tey yow même bu waajib ne ko mais nga jox ay protection mhm. patron bi yaa ko war a jox protection yaa ko war a toppatoo da nga war a mettre en place un service de sécurité man grand mu ne laa nekkoon ba may def accident ya avait même pas de service de sécurité mais après j'ai voyagé loolu yëpp état euh, kii bi patron bi wax ba de mettre en place un service de sécurité qui marche maintenant qui qui tourne 24 heures sur 24 bien que tout temps il a des accidents. Mhm. foofu euh, dans ces sociétés. récemment wax nañu benn accidenté ay accidents yoo xam ba léegi sax fayaguñ leen te loolu ñu ngi préparer des sorties mhm. di génn. ñu ngi waaj a def comme par exemple des points de presse. mais on va pas mhm. le faire devant les entreprises. entreprises ñi ñu xam euh, population bi xam. que ñi ñi xam ne ñii ñuy def li naa dañuy def dañuy def ay ay ay RSE ñi nga xam ne dañuy wane ni nii leen mel que ces xam nga nii comment ils s'occupent de ces accidentés euh, j'ai bien l'exemple de le dire il euh, le le gars de de de Sénégo de Sénégo il y a quelqu'un boo xamante ne il a perdu son son son mari. Mm. ba mu ñëwee wax ko ko mais dafa jël doomam comme li ngay wax. mais ñooñu c'est des exemples yoo xamante il faut les citer mm-hmm. Mm-hmm. mais les gens aussi ñoo xamante ni dañuy les accidentés mm-hmm. les gens yoo xamante ni dañuy dañuy les accidentés je vous je vous je encore une fois de donner ces opportunités de donner ces occasions pour ñu wax leen ko pour ñu xam parce que man je tout les chaque jour ay plaintes ba ce matin rek y a quelqu'un moo xam ne ko dàq dafa xëy patron ne ko génne usine bi c'est mm. ma am ko ma ba kooku mu dugg mu dogaa dugg man ko non je suis à Walf loolu laa ko wax je devant l'écran tu le remets mu liggéey mënoo ko su ma duggee léegi moo xoo <laughs> récemment même euh, Bataplus bi y a des morts si bu Pikine ah Pikine Pikine Pikine a eu deux morts a traité ça même ici ah mais foo ko déggee parce que yéen vous avez traité mais kenn yeneen yeneen télévision traité ko et ça se passait sous silence ñooñu après qu'est-ce que vont dire et puis traumatisme bi ñuy créé après dans la famille traumatisme bi ñuy créé kooku dafa am papa am yaay am doom ay jabar après nan lay mujjee kër gi après day tas parce que du am benn prise en charge mm-hmm. et la prise en charge bu amulee te dootu mën a génn parce que je le dis le travail rend digne la personne mm-hmm. nit ki bu demee bu liggéeyatul donc c'est très compliqué sur lui pour mu am dara mm-hmm. parce que nit ki boo liggéeyatul pour que les dans votre société dans votre mm. quartier dans votre famille parce que vous travaillez mm. et quand vous travaillez plus je suis jotul quand même Théo ñu xoolaat contrat de travail parce que tey jii bu dee nit day liggéey fenn ngay liggéey ba ndogal dal la fa déjà balaa kenn di la woon ginnaaw entreprise si boppam woon ginnaaw bedd la génne la ca entreprise bi est-ce ñuy xoolaat contrat contrat de travail ba nga xamante ni ki bu ko ndogal dalee foofu si boppam moom moo koy jël en charge fii daal xam nga lan mooy problème chaque premier mai nañ daje ñu teg kaye boo xam ne Dakar ba xawma fan même kaye yi la ñuy bu ñu paree ngoon ñu lemaat ci feuille yi dugal ca tiroir yi amul benn avancé contrat de travail yi nga wax ñoom patronat bi fii Sénégal jëmoon nañ fi ne dañuy remettre en cause article L42 article de boobu demoon nañ sax ba ay centrales syndicales yoo xam ne complice laa la wax de mhm. dem nëbbu sali narcoté te article L42 boobu moom lañu doon pare pour lan reye ne contrat à durée indéterminée dootul am. fekk ñoom jël nañ seen yëf jaarale ko ci ay société intérimaire muy recruter bu ñu la recruter trois euh, un an deux ans dàq jëlaat keneen ainsi de suite. Mm-hmm. donc contrat yooyu gis nga article L42 boobu bu ko yenn syndicat yu surtout syndicat wu euh, euh, yi nga xam ne ne ñoo nekk syndicat de base yi bu ñu taxul woon noonu centrale yooyu daañu jaay travailleurs yi jaay te moo tax contrat de travail yooyu pour pour revenir sur ça mhm. tey loolu lu jara saytu la parce que dama ne a trop de contrat de stage laa wax à durée indéterminée dans les entreprises au Sénégal moo am a contrat de prestation de service mhm. précarité moo am ci biir réew mi te malheureusement le riches veulent devenir de plus en plus riches oui. et ne partagent pas leurs profits et veulent continuer à appauvrir la classe ouvrière muy lu yéeme donc monsieur Niang xanaa rek ñu bàyyi la nga wax un dernier mot très rapidement rek bëggoon laaj parce que il devait avoir des papiers à fournir en cas d'accident de travail man je pense que loolu bu ko ñëpp amoon te ñu teg ko ci yoon comme li ñuy wax léegi chauffeur yeeg apprenti yi dekk di yaram parce que man am naa si kenn koo xam ne tànkam lañ dagg mhm. dafay obligé toog moom moo doon yëpp clients yi moo doon yóbbu di mais dafa obligé toog di tàllal loxo bo mhm. man ñooñu ce sont des ñoo xamante ne xamuñu ni en cas d' accident de travail am na fu ñu war a jaar pour mën a am prise en charge wala koy jàppale ñu bàyyi rek nga jaaraale foofu daal di waxal dernier bi ñun en cas d' accident de travail man boo nu woowee on est à la caisse. je mhm. peux donner mon numéro directement. d'accord 77 848 91 23. man ku ma woo je peux nii ngay def ak nii ak nii. Euh, par rapport lu ñu lu ñuy oh, tàggoo rek. di la di di la gërëm di la sant di wax ni. Théo vous avez région am nga dëgg fenn te te te dëgg rek nga wax lépp. parce que mhm. macha allah le président de la République monsieur Macky Sall. il y a maintenant deux conseils des ministres. il a encore insisté pour code de sécurité social ak code du travail. ñu mettre en jour imagine le code code sécurité sociale mi ngi mi ngi fi depuis 1973. dëgg la donc occasion la pour wax ko ni que président bi nanu euh, pour pour wax le ministre du pour wax ñu ma joxe nan réviser code de sécurité sociale. Mm, incha allah nga may ma foofu wax ni ministre de la femme et de la ministre de la femme et de la protection des enfants. Mm-hmm. na xam ni ministre boobu di ko wax ni les enfants des victimes d' accident. nekkuñu seulement rek si état bi. mi ngi fépp. na bàyyi xel ñooñu. ay doom lan mm. ay yaay lan bëgg nañ ko leen yërm bëgg nañ ko leen jàppale. Mm. fonds yu ngi koy jox. budget bu ñu ko jox dañ ko jox pour mu jàppale ñoom ñëpp donc c'est l'occasion ñu remercier voilà. encore di leen remercier voilà. pour, pour pour votre euh, aimable merci beaucoup monsieur Niang vraiment kontaan nañ baax on espère que problème yàlla na ci indi saafara bu baax a baax donc ko bu baax a baax dañuy daal di léegi léegi écho écho du net